Euh, abonné ci seen euh, chaîne de production bi euh, YouTube bi Tawfekh Production ngeen ànd ceeg ñun saa su nekk Mourtalla Gaye nekk ci technique bi di def liggéey bu ci ayib di leen ziarewaat bu baax a baax di rafetlu tamit gis nañ bu baax ni nga ñuy toppee di bàyyi xel programme yi di ñu wëy di ñu bàyyi xel également ci suñu ay information di jaajëfal ñëpp waaye di jaare bu baax a baax sangu sang yi sang bu tedd bi Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yàlla na fi yàgg lool te ànd ak ak mboolem kulli xalif ci Sénégal Serigne Babacar Sy noonee ñëpp yàgg fi ndax seen yàgg fi mooy suñu njëriñ ndax am nañ solo ci réew mi mbokk yi réew mi tamit gis nañ bu baax a baax li nga xamante ni euh, moom moo fi xew fan yile actualité de la semaine bi moo si waat ñu koy doore ak les sorties euh, donc multiplier yi nga xam ne mi ngi am euh, à travers fii ak le ci espace politique bi ak le député honorable député Ousmane Sonko président Ousmane Sonko mu nekk loo xamante ni vraiment. Euh, gis nañ bu baax temps yi ni mu occupé espace médiatique bi maintenant jàngat bi ñu ci mën a def mooy tey jii hmm, on voit un Ousmane Sonko boo xamante ni maintenant il a porté carrément son menton politique en tant que leader euh, position parce que loolu également loolu lay matérialiser euh, parce que avant dafa mel ni sax Ousmane Sonko coow li daf ko gën a ubbil buntu mu gën a tegu ci yoon pour gën a xàllal boppam mais luñ ci mën a jàpp mooy aussi on a vu. Ousmane Sonko boo xamante il s'est euh, rendu chez Khalifa Ababacar Sall pour discuter avec lui on a vu également euh, un Ousmane Sonko qui s'est rendu euh, chez Malick Gakou pour également lui témoigner Euh, également son son son son son euh, son son son euh, son soutien par rapport ak yenn activités politiques ñu war a mener on a vu que l'opposition une nouvelle configuration de donc ci espace politique bi par rapport à ak leaders yi mais liñ ci mën a jàpp mooy dafa mel ne tey jii donc on a vu carrément que opposition bi ñu ngi bëgg am benn apprentissage benn jàng jàngat bu ñu def que ne il est temps que ñu def lu ñuy wax rapport de force seul rapport de force peut également faire face à, donc à ce régime là bi nga xamante ñoom ñu ngi koy dénoncer depuis de belle lurette que ni euh, c'est un régime euh, qui a échoué sur tous les plans selon eux qui qui quand même l'échec bi nga xamante am na sur le plan euh, euh, des politiques publiques ak sur tous les plans loolu amatul lu ñuy weddi mais euh, également que opposition boo xamante aussi le problème qui se pose mooy est-ce que les agendas sont les mêmes Parce que aussi ça, c'est une véritable question à se poser. Parce que euh, on a vu Ousmane Sonko qui a voulu combattre un système. Et que comme son cheval de bataille, c'est l'antisystème, maintenant, on a vu Ousmane Sonko qui euh, donc se déplace avec des anciens du système d'ailleurs même. Euh, Quelqu'un comme Mamoudou Diop Toukoura, on ne nie pas sa, euh, donc, son expérience politique, personne ne le nie. mais on a vu euh, est-ce que erreur yooyu aussi mënul marqué wu ci moom parce que on a vu que quand Ousmane Sonko c'était euh, donc rendu chez euh, maître Abdoulaye Wade l'ancien président sénégalais lors de donc de de des élections présidentielles de 2019 gis nañ coow li ko ci topp ak wax ji parce que ñu bëri jàppoo nañ ne Ousmane Sonko wutoon dem foofu parce que en tant que euh, un nouveau quelqu'un qui est venu euh, tout récemment ci espace politique bi et qui a eu des scores euh, jamais euh, donc réalisés ci quelqu'un ku mel noonu donc mu nekk loo xamante ni amoon na ñëw ci nga ñoon donc euh, du coup am na benn effet bu mu defoon ci trajectoire am politique am maintenant tey jii bu ñu gisee ay Mamadou Diop Decroix ak des anciens yoo xamante ñu ngi ci ginnaaw aussi problème day am mais aussi pour mën nouvelle configuration politique bi mën nañ ci defaat beneen jàngat mooy Euh, comme par exemple euh, on a vu des jeunes ku ci mel ne euh, Thierno Alassane Sall ku ci mel ne Thierno Bocoum ku ci mel ne Malick Gakou ku ci mel ne juge Ibrahima Dème ku ci mel ne mm, docteur Babacar Diop ku ci mel ne Bougane Gueye Dany ku ci mel ne. ñi nga xamante ñoom ñoo di euh, comme Mamadou Mbaba Guirassy donc ñooñu je pense aussi euh, vraiment Ousmane Sonko mën na gën a miser ci ñooñu pour avoir une force politique parce que opposition bi tant que amuñ euh, le même langage tant que amuñu même kii bi même même doole ji pour jàkkaarloog état bi du yomb sur sur le plan politique maintenant beneen aussi xeex am na boo xamante war na leen war gën a soxal pour man aussi au delà de ces de ces de ces de ces de ces mooy ñu fexe ba le fichier électoral soit disponible ci seen loxo que ñu def l'audit du fichier électoral depuis on a beaucoup entendu que ne am na ay experts yu jóge Europe ñu ngi koy gëstu ñu ngi def nii mais il faut que ñu xam fichier électoral fan la toll lan lañ ci def parce que fichier électoral mooy mën a tax ñu xam ñan ñoo les primo votants ñan ñooy ñi nga xamante ñoom ñoo di tey jii euh, nouvelle kii euh, tranche dage bi nga xam ne gis nañ la la jeunesse parce que la démocratie a un peu évolué euh, l'espace politique parce que à l'époque personne du weddi que ne mag ñi ñoo daan fal bu njëkkoon ba ci nguuru ab Senghor ba ci ñoom ñëpp Abdoulaye Wade mag ñi ñoo doon fol maintenant on a vu la une société en pleine mutation ndaw yi ñoo gën a ëpp doole jamono ji donc du coup pour miser ci yi il faut aussi ñu lijjanti fichier électoral bi xam ñen ñoo am carte d'identité malgré 52 milliards financé nañ ko ci ba léegi France àll ne selaw daal kenn gisul euh, yenn ñu ci bëri am problème gis nañ ci élection yi passé ñi am ñaari carte d'identité ñi am carte d'identité yu am problème donc yooyu yëpp gis nañ ko aussi ci demoom ak Khalifa Sall mais nag dama jàpp ne euh, Khalifa Ababacar Sall aussi il a intérêt parce que on a vu que Sonko même conférence de presse am yi defoon jour bi mu génnee bi ñu ko defee sous contrôle na bu baax que ñu libérer les te tudd na ci Karim Wade Khalifa Sall ainsi de je pense que tey jii euh, aussi Sonko se réclame comme chef de position te loolu lay wone Sonko également wane na tey jii moom day xeexal ñooñu noonu ñu duppe ay détenus politiques parce que Khalifa Ababacar Sall ba fii ni ñu toll amagul li ñuy wax amnistie tant que amnistie wuñ ko il ne peut pas quand même euh, bénéficier euh, li nga xam te moom moo di euh, retrouver ses droits civiques yi nga xam ne mooy mën na tax mu mën a nekk en tant que candidat ak lépp lu jëm ci jongante donc de ce fait gis nañ ne tey jii chef de position bañ doon jooy naan amut am na parce que Ousmane moom fi nekk ni force nga bañ ko nga bëgg ko moom mooy le chef de l'opposition que nga bañ ko ak nga bëgg ko loolu moom on n'en disconvient pas mais nag na def ndànk ci aussi ses visites ak aussi ñi mu àndal parce que euh, Barthélémy Dias yàgg na ko dénoncé il y a des dealers de l'opposition tant que defu ci ndànk nag loolu aussi euh, tax gis nañ ko mu dem ci Ahmed Khalifa Niass gis nañ ko mu dem ci Malick Gakou c'est bien beau mais na xool identifier agenda yi ak ñi mu àndal ak ñi mu bokkal parce que tey jii pour que mu gën a percer ci arène politique bi il faut mu étudier la parce que moo xas ba jàngal nañu ni moom dafa ñëw pour quand même xe pour pour mise à jour maanaam yeesalaat mbir yi parce que euh, tey jii euh, jàpp na ne système ba fi nekkoon depuis doomu maam ñi laan jég jógee maanaam Léopold Sédar Senghor Euh, jusqu'à Macky Sall en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, c'est le même système, les mêmes faits, les mêmes cas. Mais non, il veut quand même euh, indi beneen lu bees tàq mais loolu bees mu tàq muy teg suñu loxo aussi foo mu ànd ceeg ñu bees tàq jox la chance aux jeunes te gis nañ ni dans son parti il y a des jeunes cadres il y a tout le monde ainsi donc dans d' mouvements politiques euh, comme ni ma ko waxee ay Thierno Bokk ainsi de suite mu boole leen ci également ñu def benn euh, rapport de liggéey boo xam ne dina leen may rapport de force bi ñu am pour que ñu mun a jàkkaarloog ak régime bi à travers des arguments également et des propositions maanaam des contre-propositions yoo xam ne dañ ko tegal devant le pouvoir parce que un pays qui se veut démocratique il faut une euh, opposition qui s'oppose, un pouvoir qui gère, qui gouverne. Donc loolu aussi c'est très important à préciser. Maintenant on a vu que actuellement bataille médiatique dëkk ci la nekk di occuper l'espace médiatique pour mieux exister en Ousmane Sonko mais ñeneen jàng nañ tamit ne est-ce que Ousmane Sonko nekkul dans dans dans un autre élan maanaam effacer coow yi nga xam mi ngi am nii pour indi beneen land beneen euh, euh, xarkanam visage ci landerneau politique bi c'est des questions qui se ba tey gis nga même même même euh, moom Ousmane Sonko génnam bi ci xalifa xalifa euh, euh, Ahmed Khalifa Niass je pense aussi génn la boo xamante ni lenn mën nañ ko cee jàpp rafetlu ko mooy que aussi on a vu malgré les divergences clivages yi am sur le plan politique parce que loolu duma ci dugg ku nekk xam ne ni Ahmed Khalifa Niass ñoom ñaar ku ne am na loo doon sànni sa morom que Euh, Ousmane Sonko baar gis na ko fi tamit mooy loolu mais donc yooyu du si dugg mais non euh, pour man aussi ginnaaw ay jàmm parce que comme ñi ngi dem ba tey jii retrouvaille nag euh, Ousmane Sonko aussi li mu def nii mooy wari garam daf ko war a def nga réew mi mënoo fee gouverner wala bëgg fee gouverner laa bëgg a wax sax wala am fi aspiration ci dara te tamit aussi les forces vives amoo ak ñoom un très bon rapport tant que amoo ñoom rapport yooyu aussi pour que li ngay mën li nga bëgg a mu sotti du yomb donc il faut nga am entretien de d'étroite relation yoo xamante ni avec Euh, toutes les forces vives de la nation je pense que euh, itam yi génnagul pareegul je pense que dana dem seeti yeneen leader mais c'est important maintenant moo wax Ahmed Khalifa Niass nag tënk nañ lu am solo euh, ci wàllum jàmm parce que kon nga xam ne la paix en Casamance nekk na loo xam ne depuis les régimes qui se sont succédés c'était un véritable donc casse-tête un véritable problème boo xamante ni pour ñu résoudre ko problème la maintenant tey jii bu fekkente ni ñëw na pour moom également il veut solliciter Euh, def mener des pas pour que quand même Ahmed euh, kii di président Macky Sall ak Ousmane Sonko waxtaan ba juboo ba ñu fexe ba tamit Casamance ñu gën ko mën a euh, suuxat jàmm loolu aussi c' est important à saluer je pense que tey jii daal stabilité moo am solo ci réew gis nga réew ak lu la waaye mel ni wax lu fa am lu stabilité mënoo fa am développement ak loo fa defaral boo tabaxoon ba ca asamaan sa nga def lu ne château yi nangam sangam te stabilité daal amu fa du dem parce que il faut investisseurs yi ñëw. il faut nit ñi fa nekk mën a vaquer à leurs préoccupations ainsi de suite d'ailleurs moom Ousmane Sonko l'a rappelé keroog bi mu demee ci Khalifa Sall gars laaj nañ ko ci bokk France France frappe dégage mooy ñi nga xamante ñoom ñoo di euh, kuréel googu nga xam dañuy xeex France donc euh, mu jàpp ne moom xeexul benn yoon France te ñaawlu na aussi euh, yàq-yàq yi amoon ci li nga xam ne moom moo di manifestation yi jëm ci symbole yi maintenant aussi souligné na lu am solo il faut que aussi les intérêts yi nga xam ne mooy les intérêts nationaux ñu mettre ko en exergue ñu mettre ko également au devant de la scène ak toutes les conditions yu ñu mën di teg il faut que mu nekk des conditions parties d'égal à égal maanaam gagnant-gagnant mais du ñu nangu aussi des étrangers viennent ici quand même euh, accaparer euh, lépp lu jëm ci suñu ay ressources également loolu aussi baaxul sax du ñu profité aussi suñu population bi du ci profité loolu aussi c'est important donc tey ji je pense que ces sorties là maintenant leen rek moo ci mooy aussi il faut mu xam ñan lay àndal parce que gis nañ ko ak euh, Frapp France dégage ñooñu aussi est-ce que slogan yi bokk nañ parce que ñoom déjà Frapp France dégage c'est un slogan très lourd te li muy ëmb bëri na kon Ousmane Sonko mi ngi commencé di rectifier parce que nee na moom amul problème ak waa Tugal donc ça veut dire que on ne peut pas gouverner dans ce pays pour sans pour autant nga am ouverture maintenant ouverture ne veut pas dire que ne tu cèdes lépp ngay joxe cédé mais aussi il faut quand même que la mu nekk parti gagnant gagnant 50 50 50 50